ci kaw liggéey bi jëm ci tabax yoon yi bus rapide transit te di jaar BRT di projet bi nu dénk ministère bi yore wàllu dem ak dikk bi mu jaarale ko ci banqaasam yi di sétude ak Ageroute ñu ngi leen di yëgal mbokk yi ne liggéey boobee tàmbali na ci pàccam bu njëkk bi dox ci xàll bi jógee préfecture Guédiawaye jàpp croisement Cheikh Béthio Thioune boobeeb liggéey nag du ñàkk ay xat-xat yu muy àndal ci wàllu dem ak dikk bi waaye jël nañu ay matuwaay muy ay signal ki tegtal ci yooni teggi ya ngeen di jaar ngeen ci am nag ndimbaluk ay bonum de ngir yombal seenug dem. dañ fi ñëwoon tey ak partenaires yi CETUD waa AGEROUTE ak waa CRBC ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi pour expliquer la waaye jëfandikoo yi maanaam plan circulation bi nga xam ne moom lañ fi teg pour nit ñi mën a comprendre bu baax liggéey bi buñ ko tegee naka la nit ñi dem ak dikk bi naka lay demee ñi nga xam ne ñoo yor oto ak tànk fi nga xam ne moom lay commencé maanaam ci station Total bi nekk fii nga xam ne ci préfecture bi wetu juma bu mag bu géejawaay bi fii la liggéey bi di commencé waaye fii dem ak dikk bi dañuy wut benn mbartal fii génnee ko fi nga xam ne mooy kanamu jumaa ji fi biis yi doon gaare biis yi nag ñoom ñu ngi leen jëmee ci Sonatel bi nga xam ne boo passé police bi rek exactement boo ko passé tuuti rek am na mbartal bi nekk ci Médina Gounass noonu foofu la ñuy yóbbu biis yi léegi ñi nga xam ne dañuy jël ay biis foofu la ñuy jëlee pour mën a dem fi ñuy doon bëgg a nag fekk ñoo nga ci rond point bi départ nga kon départ nañu léegi war a jubal léegi ci rond point bi nga xam ne mooy rond point sëriñ saalu yi nga xam ne jardin bi jàkkaloog mairie bi fii oto yi benn yoon lay mën a dem ak dikk doo am dépassement doo am tamit taxaw fii nag du doon benn digg yoon bi fu nekk dafay am liggéey waaye fii dem ak dikk bi ci digg bi lañ koy jaar wër nga li moom kenn du fat loolu lu jara xool la wërngal yi nekk ci tracé bi yépp kenn du ci fatt fenn foo mënta jóge bu la yàlla dimbalee mën nga boo jaaree ci mbedd yi ndànk ba ñëw ci wërngal yi di nga mën a dem fi nga bëgg a dem tracé bi yépp loolu lu am solo la loo xam ni foo nit ñi xam ko fi nga xam ne mooy wërngal yi am na ay alkaati yu fay nekk ay policiers yoo xam ne ñoom ay bonhomme de yoo xam ne dañ leen di jël ci xale yi ñu ñëw jàppale alkaati yi di leen jàppale ak ay pono ak yëpp yi nga xam ne day ànd ak circulation bi nga xam ne liggéey bi day yemb te du am benn problème kii weex yi ngeen di gis mooy nit ñi fi ñu mën a jaar jóge fii fekk du ñu wër ba sonn dinañ leen ubbil ay buntu yoo xam ne day jaar ci biir chantier bi nit ñi mën cee jox dem donc euh, mbirum saret yi fi ma doon wax léegi kon saret yi moom ñëpp war nañu mën a jàpp ni saret warta mën a jaar fii bu fekkente ne benn oto rek la ñuy bàyyi mu dem beneen oto rek la ñuy bàyyi mu dikk

jaar ci digg chantier bi foofu lay jeexe diggante foofu jëm ba rond Malibu bii booy dem Malibu frontière ak cité Aliou Sow ak dalal jàmm bi foofu day tëju carrément kenn du fa mën a jaar rond bi ba fii nga xam ne mooy rond point Cheikh fii loolu yëpp tamit dañ koy tëj léegi ban solution moo am mooy rond point Fijmi bi léegi dañ koy ubbi carrément defar ko ba mbaax baax di jaar rond-point fii mi di wutali PA yi waaye bo ñëwee ba ci kanam am na benn rond-point bu bu fi nekk boo xam ne day dem directement hôpital Dalal Jàmm yoon bi dañ koy programmer pour maanaam bépp xeetu oto bu jóge ci hôpital bi di def intervention mooy véhicule ambulance yi ñoom rek la ñuy jagleel fii ñu génni fii nga xam ni mooy hôpital Dalal jàpp boo ñëwee ba ci PAI bi bu ngeen seetloo tali bi tali bu mag bi nga xam ne mooy jógee saam Notaire jóge sauvegarde ñëw dégg nga maam ba PA yi fii dañ koy aménager après defar ko ba mel ni rond point dinañ ko defar defar bo xam boo ñëwee fii bëgg a dem nii Pikine wala nga bëgg a dem Thiaroye mun ngaa wër fii dem donc liggéey boobu ñu ngi ci ci nu mu gën a gaawee loolu moo nekkoon plan bi nga xam ne kilifa yi nañ ko pour ñu waxtaanee ko weccoo ci xalaat nga xam ne ku nekk di nga ci gis sa bopp ngeen jëf préfet département Guédiawaye CETUD ak AGEROUTE di leen jéggalu ci yooyu xat-xat liggéey bi BRT taxaw ngir dem ak dikk